àdduna bi léegi mu ci fi daa jafe ndax moom mi ñu wër daa bëri lool ay jafe-jafe làmb la joo xam ni ki lay daan doo ko fooge ñi la gën a jege ki nga gën a bëgg moo lay tooge paaka bi lay rendi sa waay moo koy daas jën ndox la woon waaye tey ci lañ koy waas lu baax la lay wan ci sa kanam ci sa ginnaaw ci la lay xërëm sa tur mu suule ki pusaaki dërëm lépp ngir nga suux soxla tax mu gërëm nga jàppee ko doomu ndey mu lay yàq tey sàmm deram nga bëgg ko te yàlla tax mu lay dunguru ngir sa dërëm dund gi wóoratul ndax baax a yombatul xar yi tey xam sa tul moo lay jam foo foogewul ah, sama gaay waaye

dañ dem si sëriñ bi jàmbal ñu jàmbu saf saf benn gaan booy déglu leen am na loo xamante ne rafetul si ab julli ñun ay xale yu ndaw lañ borom karaw bu ñun ñàkkul dara ñun ñooy ni ñun ñëpp ay intellectuel lañ jàng nañ ba yor suñuy këyit am na loo xamante ne du wax ay dañ maa liggéey ak yooyu noonu du wax doomu aadama da ngay gëm yàlla ñaari baat ñett nga ne da nga maa liggéey nit ki da ngay xëy sawablu suñu borom dimbali la mais pas nga fii nekk naan dañ maa liggéey loolu du wax bàyyi leen loolu nañ si leneen. sa gaan li mu wax raay la meen il faut ñu dem si man yi ñu jàmbal ñu hmm. doo tekki dara lu leer laa lay wax takk sangu jeex na loolu ngeen gis loolu gis dem sangu il faut ñu dem jàmm xoobu naan meen waaw ah, loolu ngeen gis leer rek d'accord naa si ànd ak yéen samay gaan ngeen bëgguma ñu réeroo am na génn kilifa gu nekk si koñ so soriwul nag mais yàggu fee ñëw boori Casamance la jógee mais mara bi ku mën a ñaan la ba pare man li ma si gën a neex mooy ku sell la man naa leen faa yóbbu suñ demee ñu àndandoo dem suñ demee mu ñaanal ñu comprendre suñuy mbir baax ñun ñëpp comme te nag yàlla doo na noonu la demee parce que itam leen wax dëgg la neexul ba neexul mais toogaay bi ñuy toogaay fii amul benn mais suñ demee ñun ñëpp dañuy àndandoo dugg si biir kër gis ko mu ñaanal ñu ñun ñëpp suñ borom defal ñu. attention mais pas saf na meen ba xalima bi baax na meen. donc kooku xalimaam du laal suuf. yaa fis mën na jàpp kon tekki nañ meen. du ma lu leer laa ñu bu nu àggee gooto gooto kenn kenn. yes sutura man kenn kenn mo gaay sutura gaay non goto goto wan wan wan yàlla amul eh, kenn kenn bari kenn kenn kenn goto goto la nga def nekk mën na nekk gaay inshallah ñu eh, amul xalaat rafet na waaw teb soose ki ma yéem mooy ki gas di suul fàtte bés buñ koy gas di suul ki ma yërëm du ki dundatul mooy ki soxor lekk ay jëfam ba baaxatul ki ma jaaxal mooy ki gëmul

bisimilah lu waral say tànk. waaw man sëñ maa ngi dëkk fii ci koñ bi. Ah. waaw xam naa nag doo xam. waaw bu ma samay morom. dëgg la waaw. waaw ma bëggoon daal. Mhm. nga ñaanal ma. Mhm. xam ne sama morom yi nga xam ne maa maa ngi nekk ñoom. damaa bëggoon daal nga ma loo xam ne. Mhm. maam damay ne sut ci lépp ak lu man doon daal. dama mën a ci sut. waaw loolu daal daal sax juróom. dégg wax bu baax maanaam dafa mel ni danga wax na danga am say xarit yooyu àndal. nga bëgg leen a jiitu gën leen a kawe daal. maam ñi may àndal laa bëggoon suuf ci lépp ëppal leen lépp loolu daal mu nekkoon sama sama mbëgg bëgg daal moom. dëgg la ñu kii wax alors que ginnaaw yàlla loolu suñu borom dem na ko fi. lu ko defee rek. Euh, am jataay booy faral di toog euh, jataay boobu boo ca delloo euh, da am juróomi juróomi minute yoo xam ne doo ko nuyoo kenn ko boo ko defee hmm. euh, dina yëkkati ko lool incha allah su yàlla baax hmm. bi hmm. bu yëkkati sa yàlla daal am ci yaakaar bisimilah dama rafet tànk. waaw man de dama fi ñëwoon tey. ñu nga sànq mooy génn sànq moom. kii génn léegi. waaw waaw sama xarit la. kii génn léegi. génn sànq. Ah. waaw la quoi mais man maay deuxième. doo nekk si ni mm-hmm. soo sa daal am koy. Mm-hmm. xanaa nag maa ngi jéggi si kàddu gi man mm-hmm. nii laa mën a waxee loolu tax quoi. mais dañuy am ñett ñëpp. mais dama leen bëgg a gën a ah dama leen a bëgg a gën a kawe. waaw ëpp na xaalis. féet leen kaw. Hmm. ñoom nekk samay bóoy. Hmm. su ma lekkee ba suur jox leen lekk ñoom féet leen kaw loolu laa bëgg quoi. waaw jataay garam place boobu nga faral di toog hmm. euh, boo fa yeggee waaw maanaam danga toog toog juróomi minute maanaam cinq minutes waaw yoo xam ne doo ci wax kenn hmm. ba juróomi minute jeex hmm. nga doog wax ak nit waaye fekk juróomi bu wax ak kenn boo fay nuyu bu wax ak kenn juróomi minute waaw donc yow suñ man moom bëri naa wax trop mais cinq sa ñaari xar yi bu ci kenn li fekk juróomi minute bu ci wax kenn loolu la ñu loolu yow man juróomi minute rek mu noppi. bu ci wax bu ci wax ak kenn ba juróomi minute ma. mën naa wax trop mais loolu moom mën naa ko seet. ci kàttan yàlla lii ma la wax boo ko defee. soo borom bi yàlla baax. ma la wax daal na ko defee noonu. jërëjëf boo àggee ci garam place bi. sa ñaari xar yi bu jox ak kenn. du ma wax fekk juróomi minute motu. cinq ak kenn. moo wax ak kenn. Euh, dama laa soxla woon nag. Mhm. Euh, ndax yàlla dafa dogal euh, ñu nekk si koñ bi. Mhm. mais daanaka dañoo amul benn métier. Hmm. comme te yàlla dogal na maanaam jàng nañ ba am yenn lijaas yi. waaye dafa mel ni liggéey daal dañoo xawata lool. keroog nag bi ñu siy waxtaan ñun ñett mm-hmm. ma ne leen am na kilifa gun nekk ci koñ bi koo xamante ne yàlla may na ko mm-hmm. te moom ndeysaan alxuraan kese macha moom la kiwee léegi nag loolu moo waral tey suñu jotaay mu mm-hmm. bëggoon nag ñu ñun ñett ñëpp suñu borom def dimbali ñu ba lépp loo xamante ne am nañu yéene ci teral suñuy waajur ñu def ko maanaam yow de mm. say mbir moom incha allah dañ ci sawar lool. Mm. incha allah ndax da ngaa ànd ko biir ànd ki teggee. dangaa dangaa wax wax juree joo xam ne hmm. daanaka dafa yomb ci jamono hmm. nit ngay ànd ak say nawle hmm. nga ne nañu ñaan te yàlla tax ngir ñu kawe yàlla suñu borom musal ñu ci lépp ah, loolu daal mu doon lu loo xam ne daal jullit yëpp boo ñu doon def daal maanaam daal eh, dina am solo lool eh, maanaam eh, léppay baax insha allah léppay baax ci kàddu yàlla waaye nag dinaa la jox loo xam ne nii ma la ko waxee bokk si ni ma la wax boo ko jëfandikoo incha mhm. am na ko gëna a lëndëm guddi te bëgg-bëggam rekk ko ñor ni bukki mooy sa xarit bi lay ree te bu sañoon guddi tey nga dee bu sañoon nga dof dëkk ci ñaan ay pexem mooy nga suux kii moo i ñaan boo nekkee ci yoon say mbir di baax mu lay laaj di la xelal nga naan kii moo baax ndeke yow daa bëgg num la yàqe te yaa koy dimbali bés bu jàq sama gaay uh, ziar naa leen am na bàyyi nu mu demee nii gaay ah, ma leen nuyoo kenn faa dama ni zo général may ku ne du xool heure nii la lan moo xew amee ah, yéen la rek dañu ni dikkali quoi lii moom lii mooy lii mooy seen problème salaamaaleykum waaleykum salaam waa mais mais léegi ah ñu ngi jàmm noo a maa ngi si jàmm toogal toogal toogal toogal toogal maa ngi si jàmm alhamdulilah mbokki fan mbokki fan Arabie Saoudi oh, góor waay ana waa Arabie Saoudi waa a ngi si jàmm alhamdulilah mhm. ndax euh, damay dox ci projet mhm. dimbali ñi amuñu liggéey. Hmm. jeunes yi nga xam ne ñoo nekk. maam maanaam jeunes yi amul liggéey daal. jeunes yi amul liggéey. Hmm. Hmm. ba tax na nag ma ñëwoon fii. valeur ndeysaan fii nag valeur cinq millions cinq millions zo général kon yéen da ngeen wax. ah bisimilah waaw waaw. ah xaaral am kooku yóbbu. non non yow ko indi. man hmm. la ko yàlla ah. man mi. ma sekk Diome Ndiaye. ah Illaah Illaah. ay ma ko defee man nag cinq millions sa carte visite ay eh waay yàlla ñëw na waay eh, jërëjëf waay jërëjëf dégg nañ de naa naa naa ñëw si kër yow naa la set na sa xol naa la woo àdduna ñi nag xaaral ma toog si yéen bala maa bala maa mën a wax ak yéen damay toog yow mën maa ñëw di wax ak yow faale woo ma yow général yow zoo noonu yéen yéen yéen lan moo leen dal yéen yéen man maa ñëw di la nuyu kenn faale wu ma ah waa jii nii gis ngeen ko ñun boobu ba léegi ñoo ñu wër ay liggéey di dem si ay sëriñ fu na ñu dem ah. si sooy waa ji bi jóg ko jëloon nag gars waay cinq millions la cinq millions yi. cinq birig la gars ma ne na doon na doon benn birig du ma leen si sédd. cinq ay birig birig. prendre sànq damaa toj sama gémmiñ gi di wax ak yéen kenn faalewu ma léegi ngeen bëgg ma toj sama sama sama sama sama cinq millions yéen xaw ma ban façon nit ngeen. ah ku am li nga wax saxuma dara 5 millions yi la. wala na meen. yow moom yow moom bala ngaa faatu euh, am place yow lenn rek laa leen xamal man aw ma temps wu topp yéen toog leen foofu dégg li ngeen di ñàkk kersi. sëriñ Bala sëriñ Bala. bisimilah. salaamaaleykum. maaleykum salaam yaa ngi jàmm bu baax a baax. oui kii dafay am maire wax ak moom maire bi ñu wax gis ñu ci dara. dina ma xew. li xew bi ñu ma ko fa. lu mu doon lu mu doon. booy amul seetal maire kii dañ koy wax dëgg maire xoolal man li ma waxoon fii rek laa wax booy yi. nekkee suñu noonu la mooy yàqal moo tax lépp amul nga cinq minutes faa leen mat sax wax nañ ñun. Eh. xamul sax li ñu wax loo. moo ñu wax loo kii moo ñu wax loo. Eh. yaa suuf. Eh, booy dañ toog mais nag leen lan moo xew. sëñ li xew bu ñu koo xam. lan doon lan moo xew. li xew bu ñu la ko toog cinq minutes jekk-jekk wax xuma ay jilo yu wax loo xuma ay rab man loolu man bu ñu sa bi meen ndam bi am moom jël li ñu jël cinq millions la waaye jox meen benn naam la ñu sukkandiku ba jox ko li ñu koy jox. sama doom toog nañ xamal ma lay xamal. fii sama kër la ay yéeme nag ay nag amul gi. ay moo yey eh, ma. noppi fii sama kër de amul ay yéeme nag yu ma wax. nga ñëw fi naan yéemaa nag yéemaa mel ni ki benn mel ni lu may bañ a wax nii lan moo xew. parce que li xew lu ñu ko xam li xew lu ñu ko xam yaa ñëw fi ay 5 minutes xaw ma ay 10 minutes. 5 minutes 5 minutes ñu bi ñu wax sax xamuñ lu ñu wax loolu. ma lu nekk bu nekk ndaw nga ne mais damaa jékki-jékki man. waaye man damaa noppee nopp nopp ba sama biir bi xanaa. seen yoon sama kër la yéen ñaar ñii yéen a àndandoo ñëw fi yow si gën xool eh fii nga toog nga ne dama bëgg nga ñaanal ma ngir ma raw sama morom sama ñaari xet bi may ànd dama leen bëgg a féete kaw loolu yaa wax nga ma ñaanal la. Eh, eh, eh. bi nga jógee ba dem yow mii buy ma fi yow it fii nga toog nga ne damaa bëgg sama xarit yi may àndal ma gën leen a kawe waxuma lool ma ñaanal dëgg wala bu leen gis nga àdduna yéene néeg la borom moo ci fanaan jullit dafa war a sa bopp nga loolu mooy gën a gore fii fii fi la toog fii la toog ne ma sama ñaari xarit bi may àndal ñu toll ñu ay ndaw toll ci liggéey dama bëgg nga ñaanal leen ñu am liggéey ñaan leen ñaan bu rafet gis nga ab li am moo ko liggéey boppam ndax dafa ànd ko yar ànd ki teggin dañ koo jàng alxuraan ba mu mat ba mu jàng alxuraan ba mu mokkal ba bind ñu yar ko yar yar teg ko siraatal mustaqiim te gis ne jàpp di julli ak joxe ak nag asaka taxut ni doon julli julli ci xol la dangay gis ñoo xam ne dañuy bokk kenn ki yàlla suñu borom wërsëgal ko keneen ki nag bañ ko di dem ci maamaan yi di ko liggéey moom mu far dof wala mu far dee dara warul ak xañaan te borom xol góob moo doon borom gën ko ko seen bàmmeel de ab du leen gën a gore de lii yéen ko liggéey de na njëkk tey nag na mujj tey fii sama kër te kenn xamul sa bis ni muy mujjee yàlla rek xam moom mi dul dee dund gi wóoratul ndax baax yombatul xaritay xam sa tul moo lay jam foo foogewul